mbokki salaamaaleykum aleykum rahmatulah taala wa barakaatuhu mbokki Medina TV mbokki réew mi mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokki tey ñu ñëwaat seen émission ëllëgu Sénégal ëllëgu Sénégal tey ñu am gan gan gu màgg gan gu am njëriñ ci biir réew mi ñu koy wax le président Alioune Sène di président pôle de la jeunesse de Dakar moom la dalal seen émission wax naa ba tey ni nit kenn ko lekk nit kenn ko naan nit njëriñ dong lañ koy. kon bu ko defee ñu bàyyi la nga nuyu mbokki internet Médina TV waaye mbokki réew mi yëpp. salaamaaleykum Abdoul Aziz salaamaaleykum waa Medina TV salaamaaleykum waa réew mi yëpp di waa Sénégal ñoo ngi ziar ñëpp eh, am mbégte loolu ak ak ak ak contentement loolu eh, ñëw ci sa émission bu mag bi di ëllëgu Sénégal eh, ci chaîne bu mag bi Medina TV fi nga xam ne fi la mburu bi di xoyam xoyamee. président nuyu nañ la bu baax président euh, balaa ñuy tàbbi ci wàllu waxtaan bi est-ce que mën nga ñu wax euh, euh, xalaatu. pour de la jeunesse de Dakar fan la jóge ak euh, date de création yi waaw PJD yi ñu koy wax pôle de la jeunesse de Dakar ab xalaatu ay kàngam la fii ci ci réew mi ay jeunes yu ay jeunes yu déterminé ñoo ñoo xalaat euh, nit foog ñu liggéey ci euh, maanaam foog ñu liggéey ci jeunesse bi liggéey ci jeunesse bi mooy maanaam wutal leen ab levier levier boo xam ni euh, jeunesse bi dinañ ci mën a def seen émancipation jeunesse bi dinañ fa mën a daje di di so di sottante ay xalaat jeunesse bi dinañ fa mën a daje di xool nu ñuy demee ci kanam jeunesse bi dinañ fa mën a daje di waxtaan di liggéeyandoo di xàccandoo di dóorandoo donc mu nekk ay ay ay journaliste mu nekk ay élèves ay étudiants nekk fépp ci jeunesse bi ñoo ñëw booloo def suñu levier muy PJD pôle de la jeunesse de Dakar. est-ce que mën nañu xam pôle de la jeunesse de Dakar siège bi fu mu ne. waaw kii PJD pole de la jeunesse de Dakar mi ngi nekk Soprim Soprim la nekk euh, donc ñu ubbi ay cellules yu bëri nag euh, ci maanaam ci communes yu bëri euh, Patte d'Oie Parcelles Assainies HLM Grand Yoff Médina ba ngeen jógee ak fépp daal ñu koy ubbi fu ne ci Ndakaaru ñëpp di ko laajte ndaxte xam na nañu seen mbir la. fi ñu dooree sunu beneen laaj bi mooy. ñu euh, nit Medina TV li sabab suñu ñëw fi bokk na ci fekkee fooy defee social fekkee fi pôle bi di dimbalee néew di doole yi waaye ci jamono yi ñu weesu ci weeru koor bi ak taxawaayam lañu ñu gis liggéey bu am solo bi nga xamante ne pôle bi mi ngi kon a def fa la ñu dooree ci suñu waxtaan ci wàllu social bëgg nañ nga ñëwoon ñu tuuti ci wàllu ci wàllu ci wàllu social. waaw social dafa bokk ci suñuy ay phase li ñuy wax phase maanaam euh, mooy bokk bokk ni suñu ay piliers euh, ñun sociale dañ ko gëm di di ci liggéey bu baax a baax a baax sociale mooy solidarité ñun dañoo gëm solidarité parce que valeur bu mag la valeur bu mag la boo xam ni suñu maam yi dañu ko dañu ko bàyyil gis nga Sénégal dañ koy waxee sax réew teraanga réew teraanga mooy lan. daanaka teraanga mooy solidarité eh, loolu lay signifier daanaka donc ñun ci solidarité boobu lañ nekk solidarité bi mooy maanaam ku ñëw ñu tatagal la mu war a wala bu dee dafa am nu ñuy jàppale dem ci orphelinat yi dem ci hôpitaux yi eh, dem ci orphelinat yi dem ci daara yi di leen jàppale donc ñun solidarité boobu dañ koo gëm eh, di ci liggéey bu baax a baax a baax a baax parce que Sénégal dañ koo xamee ci loolu ci solidarité ma dama koy damay def appel sa chaque jour naan nañ delluwaat ci valeur boobu li maam yi daan def teraanga googu ak solidarité ak dimbalante boobu donc ñun loolu daf ñoo soxal loolu tax liggéey bu baax a baax dafa nekk suñu pilier ñu gëm ko di ci liggéey di ci def lu ne solidarité moom ñun moom sans solidarité du ñu dem. ci wàllu social boobu ak solidarité bi lañuy la ñuy taxaw tuuti gis nañu tamit ci ay euh, image euh, ci ay vidéo yoo xamante ne euh, ay lalu hôpital ay ay ay accessoires yoo xamante ne aussi tamit hôpital dañu koy soxloo ay matériel vraiment ñu gis si loobu bare bare bare bare te lu mel noonu buñ ko xaymaa mën na dem ci ay cinquante millions wala wala wala wala lu ko lu ko topp mm-hmm. loolu ñu ñu bëgg a xam euh, pôle bi fan lay fan lay fan lay waaw waaw waaw pôle bii dafa am euh, am ay ay partenaires yu muy liggéeyal notamment notre partenaire numéro un di du de muy Caridad de Paris euh, dirigé par notre frère notre ami Aya Sow di def liggéey bu am solo euh, donc yooyu ngay gis noonu ci image yi loolu sunu partenaire bi moo ñu koy moo ñu maanaam moo koy moo koy moo koy indi donc. pôle de la région de Dakar dafa am partenaire di liggéey ak moom partenaire bu bu bu am solo ci ca Paris di di di Caridad ànd ak ñun di def liggéey bu am solo di di jàppale ci solidarité bi di jàppale ñuy dem ci daara yi di ñu jàppale ñuy dem ci orphelinat yi voilà. Euh, bu weesoo Caridad aussi tamit euh, am na ñeneen ay bonne volonté yoo xamante ne léeg ci action yi ngeen def. nañ leen jàppale. waaw action yi waaw mënta ñàkk mënta ñàkk euh, am na ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi gëm li ñuy def gëm jeunesse bi bëgg li ñuy def xam ni sans la solidarité Sénégal du dem jàppalante rek moo am solo euh, mën naa lim ku mel ni Mouhamadou Matar Cissé donc mën a lim ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax jeunesse bi la ñu gëm donc voilà loolu la. Euh, ñu dem ci beneen volet bu am solo. Mhm. muy volet éducation. Mhm. yaakaar naa pôle bi. mi ngi taxaw ndaw ñu ci wàllu formation. Mhm. ñu bëgg nga ñëwal ñu ci wàllu ci wàllu éducation. waaw éducation ak capital humain loolu tamit li may wax bu ñu jugee ci bu ñu jugee ci solidarité boobu ak ak ak ndimbal yi ñuy def ak don yi ñuy def dañoo gëm capital humain euh, boobu tamit ci si pilier yi la bokk capital humain ñun dañ koo gëm di ci di ci liggéey bu baax a baax a baax a baax mooy maanaam la formation des jeunes parce que jeunesse bi tant que defaluñ leen ay formation du ñu mën a dem ku ne da nga war a am loo mën ku jàng dara mën ko loolooy doxal réew mi boo demee réew mu mel ni États-Unis boo gisee ku ne am nga loo mën loolooy développé dëkk bi donc ñun tam Sénégal dañoo gëm ni loolu rek moo mën a développé dëkk bi donc état du joxe liggéey day def benn climat climat bi lay teg léegi climat de climat boobu bu ko tegee ku ne mën ci jafandu daal di xool li nga mën daal di surtout entrepreneuriat ñuy wax jeunes yi nañ dugg ci entrepreneuriat maanaam nañ dem ci entrepreneuriat defal seen bopp seen ay mbir jéemal seen bopp demal seen bopp mënul jël ñëpp donc euh, ñun dañuy encourager jeunes yi pour ñu mën métier mën qualif am qualification mën a demal seen bopp voilà loolu moom lu ñu soxal la loolu moom dañ ciy wax saa su ne on a organisé benn forum def ci réunion wax def nañ ci ay réunion yu bëri def nañ ci forum waxtaan ci xool jeunes yi nan la ñuy def ba ñoom ñu mën a am seen formation am seen qualification dugg ci entrepreneuriat mën a demal seen bopp loolu moom dañ koo gëm lool waaw. tey ku doon jàng. Mm-hmm. sa jàng arrêté nga bëgg jàngaat euh, wala kuy jàng jàng mënta yegg ndax amul doole na kooku bu ñëwee ci pôle bi dinañ ko taxaw. waaw mais pôle bi looloo ko tax a jóg. mur de lamentation wu jeunes yi la à part politique bi ñuy def ñun dañoo am li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy xaajaleeg yeneen mouvement yi mooy maanaam ñun dañoo jël volet capital humain. ak volet euh, solidarité daal teg ko ba pare soog a teg politique bi donc euh, gis nga comme comme comme comme li ma la doon comme liñ ni ñu ko doon waxee sànq gisoo koor gi ni ñu def du premier au trente dañoo nekk ci daara yi nekk ci mbedd bi di joxe ndogu saa su ne di joxe di joxe di maanaam di joxe ndimbal donc buñ loolu tamit ci foofu tamit dañ ciy liggéey mooy maanaam jeune bu ne ñoo ngi koy teg sax ñoo ngi koy teg cinq jeunes en parrain cinq jeunes un parrain ci loolu la ñu bëgg jublu mooy maanaam képp ko xam ni jàpp nga ci dara am nga am nga am nga tuuti doole ñu pare parrainé la cinq cinq nit nga leen di mën a jàppalee dara ñuy mën a demal seen bopp donc ñoo ngi koy loole ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax euh, euh, benn nit bu ne parrainé cinq cinq cinq cinq cinq kii cinq jeunes comme ça ñu mën am ñu xool ñu xool ñu ñuy mën a avancer. est-ce que envisage ngeen am partenariat ak centre formation professionnelle. bien sûr bien sûr ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax ñu bu baax a baax a ci cadre boobu xam naa ñu ngi ciy bu baax a baax a baax comme li ma la doon wax sànq mooy maanaam ñuy parrainer xale yi ñuy parrainer jeunes yi pour ñu am formation jeunes yi ay jàmbaar lañ boo leen gisee ñu ci kaw jakarta yi ngi fu ne ñu ngi daw fu ne donc ku leen jox qualification jox leen formation ñu mën a demal seen bopp dina am solo surtout ak entrepreneuriat bi. pôle de la jeunesse de Dakar dafa yëngu ci wàllu social. Mhm. di yëngu ci wàllu actuellement mu lëmbee réew mi euh, foog ñu waxtaan ci tuuti euh, ci wàllu politique nga yor pôle de la jeunesse de de Dakar euh, Macky Sall aussi tamit moom it am na politique de la jeunesse bu mu bu mu bu mu teg foo toll ci ci wàll boobu nax yaa ngi jokkalanteeg ñoom. Mm-hmm. ñi nekk ci nguur gi ngir ñu jàppale la ci liggéey liggéey. waaw ñun moom PJD pole de la jeunesse de Dakar eh, nous sommes le partenaire bu ma ko mën naa ne wax ni nous sommes le partenaire numéro un sur la jeunesse du président Macky Sall parce que ñoo ngi soutenir. ñoo ngi soutenir euh, politique de jeunesse am soutenir politique de jeunesse am mooy maanaam dem ci gox yi di waxtaan ak jeunes yi di leen xiir ci entrepreneur di leen xiir ci ci ci ci maanaam ci euh, di liggéey ci xëyu ndaw yi parce que ñun loolu daf ñoo soxal daf ñoo soxal te comme li may wax rek chaque jour euh, maa ngi ko doon wax keroog sa benn naataango lu tax ñuy soutenir politique gu jeunesse su Macky Sall dañoo gis ni président Macky Sall cooli cool lu muy rëy président bëgg na jeunesse am président yërëm na jeunesse am président ñeewante na jeunesse loolu man xam naa ci dara donc nit ku mel noonu da sawar soutenir politique de jeunesse am moo tax ñun lu nekk à la base nekk ci nekk fa parce que président mënul jotee fu ne mais ñun dinañ nekk à la base nekk échelle bi nga xam ni mooy nekk diggante jeunes yi ak président comme ça ñu xam li jeunes yi di nekkee ñun ñu koy mën a yeggee ci plateau yu mel ni seen plateau yu am solo yi. kon actuellement mën nañu jàpp ne pôle bi dafay jàppale le président. waaw pôle bi le PJD pôle de la jeunesse. de la jeunesse bu président waaw le PJD pôle de la jeunesse de Dakar dafay jàppale président Macky Sall ci politique de jeunesse am ndaxte gis nañu mu ngi ciy def lu am solo moo ko waxal boppam yëg naa seen bébét dinaa ci taxaw donc ñun tamit dañ koy accompagner ñëw en rapport nekk ci base bi liggéeyal ko ci. liggéeyal ci jeunesse bi. est-ce que yow euh, ñoom ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay accompagner ndax euh, Alioune euh, dañu gis. activité yi ngay def mooy activité yoo xamante ne tey ku amul doole du ko def. Mhm. ku ñu jàppalewul tamit du ko du ko mën a def est que ñoom ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi taxaw ci wàllu. voilà doole du doy on a des partenaires mais ñun partenaire bi ñu gën a soxla sax mooy la président Macky Sall mu xamal ni ñun ñoo ko nekkal ci base bi ñun ñooy ñun ñoo koy liggéeyal ci base bi ñun. ndimbalu Macky li ngay li comme li ñuy wax solo du du lu am lu mën a am solo lay doon si ñun am nañu ay partenaires yu ñuy jàppale mais bu président Macky Sall ñuy gën a soxla parce que ñun ñooy ñun ñooy soutenir politique de jeunesse am ñun euh, ñun ñooy dem di di di wax ci li nga xam ni moom moo ko def euh, moo ko réaliser ñu ñu ñuy wax ñu ñun ñoo wax pour ñu aar ko ñun ñooy wax pour ñu toppatoo ko PJD mi ngi ci mbir yooyu yëpp. donc voilà donc euh, ñun daal boo boo boo boo seetoon tey bay xool on est le numéro un te loolu moom kenn ko weddi kenn ko werante on est le numéro un à soutenir le président Macky Sall dans sa politique de jeunesse. ndax président de la République. gisatee gu leen mu am. non waaw waaw waaw déggoo ma ne am nañu ay partenaires yu ñuy jàppale mais comme li may wax rek donc président ñun dañ koy woo pour mu accompagner ñu dañ koy woo pour ñu accompagner parce que ñu ngi ñu ngi nekk ci politique de jeunesse am ñu ngi soutenir politique de jeunesse am donc moom moo de moom moom ndimbalam du mën a du ndimbalam lu baax si ñun lay doon. ñoom war nañu gaaw ci hmm. taxawu. organisation yu mel nii pôle de la jeunesse Dakar. Mhm. li tax mooy demande bi dafay bare. Mhm. demande bi dafay bare ci ci ci côté yëpp. dafay ci wàllu social. dafay bare ci wàllu mhm. euh, éducation. dafay dafay dafay bari ci wàllu ci wàllu bépp. kon yéen la ñu war a yéen yéen la war a dooleel. mais nag malheureusement dooñu ko def. dañuy dem fekk benn nit boo xamante ne bon. Lamine rek la yor. Mhm. ñu jël ko jël seeni xaalis. ci mhm. xëpp ko ko. Mhm. ñu dem séddoo mu jeex. kon nag léeg-léeg dañuy bàyyi yoon yi. yoon yi mooy organisation yu mel nii. nga xamante ne boo fi defee dina am njëriñ te dina dem ci askan wi. te benn nit rek du ko jël lekk. waaye politique nag ñoom yéen politiciens yi. loolu loolu mooy loolu. mooy seen waaw comme waaw waaw gis nga gis nga politique dafa doy waar. Eh, parce que boo xooloon tey am na ñuy mbuboo Macky Sall te gëmuñu li Macky Sall di def boo ko xooloon tey am na ñoo xam dañuy maanaam ñi ngi ñi ngi comme ni ñuy wax dañuy dañuy dañuy sol yëre bukki toog ci wotu président yaa ngi dégg eh, mais ñun engagement la ñuy demee ñun engagement la ñuy demee ci euh, président Macky Sall si xol bu set lañ ciy demee euh, moo tax euh, ñu créer sax topp tànk Macky bi ñu créé woon ñëpp réew mi yëpp di ko di ko wax topp tànk Macky bi maanaam dégage budget bu am solo loo xam ne ñoo ko jëndal suñu bopp di def tournée di xool lépp lu président de la République réaliser ñu wax ci wax jeunesse bi nañ ko aar wax ni président moo ko créé pour jeunesse bi. yaa ngi ci démarche mooy démarche président de la République. recevoir la. waaw mais bien sûr loolu ya loolu. incha allah non incha allahu rabbi incha allahu dama jàppane boo ko boo ko jàppee nii rek nii. non non dina métti comme li ma la wax rek. Euh, kuy liggéey ci yoon. dinañ la ca dinañ la ca fekk. yaa ngi dégg donc euh, euh, ñun ñoo ngi suñu yoon ñoo ngi liggéey on fait partie des. mouvement de jeunesse euh, yi nga xam ne ñoo ëpp doole ndakaaru ba pare euh, maanaam li ñuy def ci solidarité li ñuy def ci euh, maanaam ci ay don li kenn kenn defu ko li ñuy liggéeyal askon wi moom xam naa ni moom ñoo ci man moom moo tax suñu volet politique tam am doole voilà loolu la xam naa ñun bu ñu soxlaa ñu bëri nañ ñàkk. maanaam kon tey bu amul woon ko amul xëy. Saliou bu amul woon xëy mën naa ko jël si ñëw andi ko ci président Alioune mu wutal ko xëy. waaw loolu orientation la xam nga nit. xam nga mënuma jël ku ne ma wutal la xëy wala dara mais dinañ la orienté dinañ la teg ci yoon dinañ la ni nga booy di waxee dinañ la teg ci axe ba ba ba ba ba nga mën a jénn ci parce que ndakaaru njaay moom fii dëbb dëbbal rek a fi am. maanaam pôle bi daal ku si dugg daal. waaw di sa bopp. waaw mais loolu la la ñu bëgg ci loolu la ñuy yëgee sa bopp ci la ñu bëgg nag ci lool la ñu ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu bëgg di jàppale président Macky Sall et ñoo ngi encouragé tamit euh, nu mu tëdd sax Modou Fall le directeur de de de de l' emploi ñu ngi koy encouragé ni ko na mi ngi mi ngi mi ngi liggéey mais na yokk loxoom euh, pour jeunes yi gën a am ci lu ñu jàpp ñoo ngi koy encouragé bu baax a baax Pape Modou Fall ni ko gis nañ liggéey bi waaye na na na ñëw gën a tàpp jàpp ci PJ di ñu ñu ñu gën a jàppandoo. moo wër dëkk bi yëpp woo leen ci PGD ñu ñëw ñu waaw waaw waaw PGD yëf yi demee na mu daan demee ci yeneen organisation yi ah c'est-à-dire yeneen organisation yi hmm. gars yi dañuy ñëw rek waaw du du ñu seen bopp dafa mel ni bii bokk ci. non bii ma ah yaa ko gisal sa bopp di. bi moom bii moom yaa ko gisal sa bopp yaa gisal sa bopp. am na lu ñu ci gis lu bare bare. voilà bii ñoo ko gisal suñu bopp. voilà bi yaa ko gisal si yaa ko yaa ko yaa ko jugal gisal sa bopp ne action sociale yi def. ah bëriwul mouvement bu koy def fii. wax dëgg yàlla ay bonne volonté rek ñoo ciy jàpp. Euh, gëm li ñuy def xam ne jeunesse bi mooy lépp. man man man sax ne woon naa ne Aline mii dafa am dafa am ku nekk ci ginnaawam nax mhm. nit ñi ci koor. koor mhm. ma ma dellu ginnaaw tuuti ci koor gi dama gis ne nit ñi dañuy ñëw joxe joxe benn yoon mais Alioune dama la gis durant koor gi yëpp trente jours yëpp yaa ngi def ay action te loolu nag waaw ah. waaw waaw ndimbalu comme li ñu wax rek ndimbalu yàlla rek la ak maanaam ku nekk ci mbir Euh, ku nekk ci mbir lu baax rek nit ñi dina ci fekk si ay bonne volonté ñoo ma ci ñoo ma ci fekk si euh, li ma lay wax ku lu mel ni Caridad de Paris jàpp ci bu baax a baax jàppale ñu ñuy joxe ndogu ci biir Ndakaaru yëpp wër gox yëpp fu ne ñu joxe fa ndogu donc def lu am solo euh, voilà loolu la daal donc et puis di encourager gis nga di encore am na ñoo xam ne dañ leen war a encourager ku mel ni le DG de SAPCO Souleymane Ndiaye mu ngi def liggéey bi am solo ñoo koy encourager bu baax a baax di ko wax foofu la fu mu jàpp noonu la. voilà loolu la président Macky Sall soxla. Alioune seen pourquoi tibb tànk. waaw tibb tànk loolu Bougane moo ko créé woon man maa. créé topp tànk topp tànk laa bëgg a wax. waaw waaw waaw Bougane moo créé. topp tànk laa bëgg wax. Bougane Gueye moo moo moo créé. tibb tànk moo fekk ko fa fël ko def ko tuddee ko tubb tànk euh, euh, topp tànk topp tànk bi mooy lan. loo koy waaw waaw non fël bi c'est-à-dire que non cest boo nee tibb tànk rek day mel ni Macky Sall réalisé wul dara donc je l'ai fait j'ai ma ma ma ma fël wax ji indi beneen beneen lu ñuy wax topp tànk topp tànk bi mooy lan c'était sur les pas des plus grandes réalisations du président Macky Sall mooy maanaam lépp lu président Macky Sall réalisé. ci lu eh, lu rëy ci dëkk bi ma dem fa def fa ay public reportage yu am solo wan ko dëkk bi wax jeunes yi nañ ko aaral seen bopp xam ni suñu yëf la patrimoine la pour nous ak les génération futures à venir donc looloo tax ñu créer topp tànk topp tànk bi du sama njëriñ kese wala muy njëriñu Macky donc defuma je suis pas pour wax Macky Sall non c'est-à-dire loolu damaa bëgg nit ñi xam li Macky Sall def ba pare ñu sàmm ko. pour les générations futures parce que ñun rek moomuñu ko génération future yi dañ koo moom muy terre bi muy stade bi muy leneen ak leneen berte bi ñuy defar mais Macky Sall moomu ko da koy tabax nii mais day dem bàyyi ko fi donc c'est pour les générations futures moo tax j'insiste je persiste nañ ko sàmm nañ ko toppatoo parce que ñun ñoo ko moom Dakar dem dikki ak bis yi lii ñu lakk yëpp suñu suñu suñu yëf la lu ñu fi lakk suñu yëf la donc nañ arrêté loolu je n'encourage pas ça nañu nañu nañu lépp li nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy def nañ ko sàmm toppatoo ko ba encouragé mag Sall muy def noonu parce que balaa nga koo xam nga boucher tuuti boo jëndee ci yeneen réew mi dinga xam ni kat suñu réew mi ngi avancé récemment j'étais au Maghreb demoon naa tourne benn tourné dem Maghreb mais ba ma ñëwee xam naa ni mag Sall kat mi ngi def ay effort mu ngi def ay effort yu mag a mag affaire effet yooyu kii nag effort yu mag mag yooyu c'est à saluer à encourager ba pare wax nañ ko protéger loolu moo taxoon looloo taxoon ma topp tànk Macky Aliou li ñu desee si wàllu waxtu bareetul waaye euh, foog ñu am tuuti lu ñu waxtaanee ndax euh, ku wax pôle de la jeunesse de Dakar wax ndaw. Mm-hmm. te ndaw moo yor réew. mooy yaakaaru réew mooy euh, ñu gis jamono yi ay manifestation yu am ci biir réew mi de partout te lenn waralu ko gis-gisi ñenn ñi dañu gis ne ñoom yëf yi doxul. Mm-hmm. ñenn ñi nag kenn ku ci nekk am na lu la yëngal. ba nga ci tali bi. ñenn ñenn ñi di manifester di ko teg ci yoon waaye ñenn ñi di manifester di ko bañ a teg ci yoon maanaam wax nga ko léegi di yàq li nga xamante ne. askan wi moom moo ko moom. yow nag euh, nga nga yor ay ndaw jiite leen euh, yow ban appréciation nga am ci loolu. waaw man comme li ma waxoon keroog rek sa benn naataangoo damay wax fitna kan la jig. Ah. fitna. jigul nit jógul mala jigul kenn fitna baaxul yàlla dafa rëbb fitna yonent bi rëbb fitna yàlla nee na bu kenn yee fitna donc fitna baaxul man je condamne fermement le PJD pole de la jeunesse de Dakar ñi ngi condamne fermement saccage yi ñuy def ci dëkk bi di yàq ka taal loolu du dëgg du yoon xel nangu ko xalaat nanguwu fa lu fi waay yàq sa bopp nga ko yàqal lu fi waay toj sa bopp nga ko tojal sa njaboot nga ko yàqal sa famille nga ko yàqal ñëpp nga ko yàqal Sénégal ñoo ko moom nañ ko sàmm booy manifester dàkku manifestation kenn bañu ko. gars yi am nañu droit manifester waaw moom déggoo la ma wax. manifestation kenn bañu ko mais gis nga manifestation. aussi tamit. mais mais maar xoolal euh, gis nga Abdoulaye Abdoulaye Aziz. manifestation boo demoon ca xaar ma ne am nañ droit manifester. waaw waaw waaw waaw manifestation. mais mais mais mais mais président bañul bañul bañul manifestation. Mm. manifestation kenn bañu ko. mais di manifestation di yàq. di toj di sàcc di agressé di def luñ la santul di gaañ ay nit di taal ay oto jàmbur di taal këru jàmbur loolu kenn d'accord ko ci loolu kenn d'accord ci képp kuy xalaat sax doo d'accord ci loolu donc maa ngi wax jeunes yi nañu bañ a dugg ci loolu jeunes yi maa ngi leen di wax ñu dem xëy dem reyante ji dem wut lu ñu jox seen ndey ak seen baay loolu moo am solo gis nga réew mi fi mu toll nii nit ku ne da ngaa war a loo jox sa njaboot dem ñafe ji ñafe sa life comme ni ko ni ko ko ni ko xale yi di waxee donc man je les encourage pas ñu génn ci tali bi di toj di yàq donc le PJD di travers son président Alioune Sène condamne fermement yi nga xam ni mu ngi fi am léegi. waaw ñu góorgóorlu ci wàllu ndaw ñi. Mhm. ñu góorgóorlu ci wàllu ndaw waaw waaw naa d' naa loolu ne. waaw. li leen motivé. waaw. du nit moo leen motivé. waaw waaw mais da xamante ne. waaw waaw gis ku jàng ba pare. Ah, waaw Aziz d'accord naa gis nga dama ni dama ni. nit lu la mën a motivé. lu la mën a motivé. waroo dem di yàq yëfu jàmbur. d'accord loolu c'est xoolal inadmissible. maanaam loolu loolu baaxul loolu moom. yow mii doo ko nangu keneen du ko nangu sa rakk bu jënoon léegi di yàq da ne ko eh dugal ci biir kenn du ko nangu donc loolu c'est inadmissible loolu moom wax dëgg yàlla ñoo ngi koy condamné fermement yàq baaxul lu ñu yàq suñu bopp lañ koy yàqal ñun Sénégal yeneen dëkk yi dañ ñoo ñee léegi dañ ñoo ñee am maanaam ñi ngi ñi ngi avancé pourquoi li ñu li nga xam ni moom ñu avancé la ñu koy yàq donc loolu moom bu ci kenn dox waaw ñu góorgóorlu rek man sama wax mooy ñu góorgóorlu taxaw waaw waaw góorgóorlu waaw ndaw ñi mënta ñàkk waaw waaw waaw ci ci ci ci yu mel noonu ci yu mel noonu ci yéen ñuy politique ci voilà ñuy politique gis nga am nañu yéen ñuy ma ñëw al léeg-léeg wax ji mhm. nit ñi dañuy wax rek uh-huh. a wax a wax a wax ñu jox la doole waaw ñu la doole waxuma mm. la nit ñi mm. ña nga àndal sax mhm. ña nga àndal sax ñenn ñi duñu duñu duñu mën a bénéficier wu ci yow loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu mën naa la wax ne mhm. gis naa ndaw mhm. bu jàng ba pare mhm. di politique am li muy am yépp ba jeexal tag dem ci mbedd bi di jaayi café waaw waaw loolu euh, te ñuy te ñooñu noonu ñuy àndal gis naa ñu jëli ay millions jox ko benn nit mu dem lekk ko toog xam nga xam nga loolu waaw kenn waal gi yëpp. waaw loolu la ñuy def. gis nga gis nga dañuy bàyyi nañu nañu dimbali ndaw ñi nga xam naa am ay politique nga mais mënta ñàkk ànd ak ñoom te jàng ba noppi. gis nga Aziz ñu leen. gis nga loolu mënta ñu xool fi ñuy def seen xaalis gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga alal mu jar ko. gis nga politique dafa doy waar. man am naa comme ñi ngay wax xam nga da joxe exemple. ci am ñu doy waar man de dinaa dama la jox ay exemple ci politiciens yoo xam ils sont honnêtes ñu ngi liggéey ñu ngi lu seen gox ku mel ni Salihu le DG du CICES boo demee tey Sangalkam ma ngay nekk foofu di taxawu jeunesse am bëggul jeunesse jooy bëgguñu ñëf dara gis nga Macky Sall looloo leen sant te am na ñu koy def am na ñoo xam ni ñi ngi nekk ci seen base di liggéey di jàppale jeunes ya fa nekk di jàppale maire ya fa nekk ku mel ni dama lay jox exemple ku mel ni Salou Keita il est en train de faire un travail remarquable Salou Salou Keita ngi lay féliciter bu baax a baax di la wax noonu la fi nga koy teg foofu la góorgóorlul foofu continuer noonu donc ñun yooyu la ñuy xam ni du ñu jàppale seen askan wala du ñu jëmbal seen askan wala bu ñu leen santee dem nañ ci base bi du ñu ko def ñun bu ñu ko gisee dinañ ko dénoncer dinañ ko dénoncer parce que président Macky Sall kenn loolu Macky Sall sant ñu jege population bi xoolal ku mel ni Lat xoolal DG bu DG DG DG Lonase ni muy jàppale waa da leen di taxaw waa Géejawaay namuñu dara mi ngi leen di taxaw donc on a a besoin de ces politiques comme ça mais am na ñoo xam ne am na ñu ne yëf yi daal di mais boor ah. mais mais dafa bokkul doo la non déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax dama ni la dama ni la dama non dama ni la dama ni la xoolal waaw waaw waa wuyu ma da may wuyu fii dama ni la mënta ñàkk gis nga mënta ñàkk am na ñoo xam ni liñ leen sant duñ ko def am nañ si ñoo xam ne ñu ñettante mais déggoo li ma la wax képp xam ñëpp ñi nga xam ni ñun dañuy gis ni kat ñoom nekkaluñ fi askan wi seen bopp lañ fi nekkal ñun dañ leen di dénoncer yaa ngi dégg ñun on est là pour la jeunesse on est là pour les populations on est nag pour accompagner pour pour maanaam encourager ñi nga xam ni ñi ngi def liggéey bu am solo ñi nga xam ni ñi ngi jàppale jeunesse bi eh, ñi ngi mel ni ñu ngi taxaw seen jeunesse ku mel ni Lat Diop ñoo koy encourager bu baax a baax mbokk yi euh, mi ngi noonu bëggoon nañ mu gën a yaatu xam naa ci yeneen jotaay dinañu gën a yaatal waxtaanee ci wàllu wàllu wàllu wàllu politique. Mhm. gën cee gën ce yaatal ndax pôle de la jeunesse de Dakar dafay yëngu ci ci lépp lay lay lay yëngu euh, bu ko defee rek euh, président ñu bàyyi la nga tàggatoo. Mhm. Euh, joxe sa kàddu gu mujj. waaw li may wax rek euh, mooy comme li may wax chaque jour di ñaan fii jàmm ak salaam ci réew mi di wax jeunesse bi bu leen kenn dugal ci loo xam ne lu nekkul ci loo xam ni baaxul loo xam ni jëmalewul réew mi kanam di encourager nag euh, di encourager bu baax a baax a baax euh, la reine gaajo la la reine Zahra gaajo bi créé CPR fan yi mook Ibrahima Ndiaye ñu ngi leen féliciter bu baax a baax di leen wax liggéey bi am na solo noonu la faut travailler autour du président Macky Sall jàppale ko ñu ngi ñu ngi mbébét ñu ngi def ñu ngi nekk ci entrepreneur jeunesse bi ñu ngi entre ñu nekk ci entrepreneur ñu ngi leen di encouragé leen wax am nañ seen levier am nañ seen levier nañ ñëw ci seen levier muy pole de la jeunesse de Dakar ñu xàccandoo dóorandoo Sénégal yàlla na fi jàmm sax Sénégal yàlla na fi jàmm sax ñu bàyyi nag suñu góor yàlla yu ñuy kekkantoo ak di leen foowee sëriñ si foofu dal foofu laay tëjee dama ni ku mel ni sëñ Bamba ku mel ni Baye ku may ne Alaaji Malick amul amul amul ci meneen amul amul ci beneen réew dama ni yàlla ñun la ko séddee donc ñooñu ñu mel noonu ak ñu ak ak ak seen i sët nan leen wormaal nan leen wormaal martaba du baale chaque jur moo ko martaba du baale te ñun ñëpp ñu toogee di seetaan mm, jeex na ñun ñëpp bu ñu toogee di seetaan ñoom ñuy wax naka su dul noonu ci góor yàlla yi wala ci wàll yi wala ci xutbu yi wala ci laxdaa bi yàlla buy duma ñun ñëpp lay duma donc voilà balaa nag ñu yegg foofu ñun ñëpp ku ne na nga yar sa njaboot ku ne na nga yar sa njaboot ku ne na nga xool sa njaboot ñuy wax wax ju baax di def def ju baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut nit ki del wa nga la del wa boo gëmee ne yowmal xiyaam am na del wax wax ju baax wala nga noppi Sénégal la ñuy wax wax ju baax mën nañ mën nañ yàq der mën nañ mën nañ sàllar ni ab gor loolu nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi donc ci loolu laay tëjee di wax Cheikh Mourtada Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëñ sëñ sëñ Mbaye Babacar yàlla na fi yàgg te wér ak bépp xalif bu nekk fii eh, di ñaanal waa Sénégal yëpp yàlla na fi jàmm sax. mënta ñàkk ñu waxtaan ci li nga xamante ne actualité la balaa ñu. Mhm. national. bi nga mhm. xamante ne actuellement. Mhm. mi en cours euh, l'absence de Sonko. naka nga jàngatee. waaw man de loolu de bu doon sama sago. da doon euh, gis nga loolu moom je n'encourage pas bu nee dialogue bu nee dialogue national ñëpp fa war a teew. dialogue national ñëpp fa war a teew parce que loolu waxtaane réew mi la gis nga guerre mondiale sax ci table la mujjee donc lépp luy maanaam lépp luy jaloog national bu ñu wootee dialogue national président bu wootee dialogue national damay wuyu. demal nga wuyu comme ni ko ñoom Khalifa Sall defee ni ko ñoom sa Seck defee ni ko ñeneen defee di encourage tamit euh, euh, mon frère euh, Barthélemy di ko wax maa ngi koy encouragé bu baax a baax a baax a baax a baax gis nga dem na moom tamit ni moom il pour la paix noo ngi koy encouragé bu baax a baax a baax di ko wax noonu la fi mu ko teg foofu la. lan ngay wax ndaw ñi. ndaw ñi ñu toog seen kër bu ñu liggéeyee ba waaj ñu dem toog seen kër naan attaaya waxtaan te bañ a jënd ci mbedd bi di sànni xeer jaru ko dara jaru ko fi dara jaru ko fi xeex baaxul fitna baaxul violence baaxul comme li may wax rek chaque jour je condamne fermement la jeunesse te dinañ ci organiser ay forum dañ ci organiser lu bari bari pour sensibiliser jeunesse bi bu def ci ay caravane waxtaan ak jeunesse yi def plateau yi waxtaan ak jeunesse ni leen jàmm rek moo gën jàmm ma njëkk jàmmay mujj. mbokk yi mi ngi noonu jàmm ci la lépp xaj wax naa ba taay ne jàmm bu amul lu waay jàppoon di nga ko teg ci suuf ba jàmm am réew mi yàlla na yàlla def jàmm. mbokk yi yal nañu yàlla fayal sunu mag ñu baax ñi comme ni ko président Alioune Sène waxee yal na yàlla fay. amiin sunu mag ñu baax ñi réew mii di Sénégal bu nu amee jàmm sunu mag ñee tax yal na yàlla réew mi yal na yàlla def jàmm réew mi yal na fi yàlla def jàmm réew mi yal na fi yàlla def jàmm mbokk yi mi ngi doon seen émission la woon ëllëgu Sénégal ñu amoon gan waxoon naa leen ko gan gu màgg gan gu euh, yàlla baaxal ci taxawaayam ñun. Euh, li tax ñu naw ko li tax ñu seet ko dañu gis à travers action yi muy def ci ci réew mi ñu seet ko ba gis ko euh, seq ak moom waxtaan bi ñu waxtaan ak moom ndax moom it am na njëriñ ci réew bi ci dimbali néew di doole yi ci dimbali nit ñi ci dimbali xale yi ci wàllu jàng ñu mel nii président Alioune Sène la war a jàppale ndax bu leen jàppalee mu yegg si si askan wi te askan yi loolu la soxla. ku leen ku leen dimbali rek la ñu soxla kon nag président Alioune Sène li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal. amiin amiin yàlla la yàlla jàppale. ba li ngay dimbalee askan wi. ndax ndax demande bi dafay dafay gën a yokk. Mhm. Sénégal boo commencé dimbali nit ñi rek demande bi dafay gën a dafay gën a yokk yow li ngay yóotu tamit boo si jotee sa yéene yàlla na yegg. mooy mu yegg ci askan wi. te am nañu yaakaar ne dina yegg ci askan wi. mbokk yi mi ngi noonu ñu leen di gërëm. di leen sant delluwaat di remercier le président Saliou Seck ak mbooleem ku mu àndal ci biir kër gi di Medina yi di liggéey di leen félicité waat bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne moom la ñuy def mbir mi moom nekk ci rek mbiri yitte la liggéey bu sell liggéey bu rafet wax wax ju rafet di ko doxee di ko waxee boo defee jàmm am jàmm jàmm soxloolu ñaan defal jàmm am jàmm réew mi yàlla na fi yàlla du jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa